ay toog ñu naan dongo nga ak ñun nañ ko dépassé ñun yooyu dund nañ ko bañ nekkee xale dugg fenn ngeen acca dongo bi jógel fii acca ndax ñun loolu on l'a vécu oh, par nous sax ñun ñun suñ bopp sax hmm. da ngay gis sa sa mbokk mu mbokk daara bu ne nga ne ko yow dongo pire nga yow dongo piir nga xam dongo piir nga ñun loolu loolu du suñu problème on est fier que ñu dañuy wax dongo lañ euh, je pense que xalifa généraux yëpp ko ci wax tamit da dégg ñu ne ñun ay taalibe lañ sëñ Muntaxa ñun duñu dara taal sëñ Tuubaa mooy dara sëñ Tuubaa tamit ne man si yonent bi mooy sama nangam yonent bi ne yàlla la wala yonent bi ne sax ne nit ñi la bon je pense que loolu dañ ko dañ ko dépassé parce que tey soo xoolee dañ ko dépassé dañoo dépassé loolu ñun euh, soo xoolee tey gis nga daara ñun niñ ko gisee daara moo raw ci gis-gis daara sax mooy lan lan mooy daara lan ngeen di tuddee daara daara mooy fi ñuy jàngee mais daara yi ñi ngi jàng français daara yi soo demee tey ñi ngi am ñi ngi am bac ñi ngi ci université yi cest à Sénégal dafa dépassé baat bi rek lañ olofal voilà parce que boo déggee ñu naan euh, franco arabe internat mais lépp daara la université gi sax daara la sëñ bi daara gi mag gi lañ koy wax saa boo bëggee wax olof daara nga koy wax mun mënoo ko wax université boo bëggee wax olof boo bëggee wax nit tamit étudiant bi wala taalibe bi ndongo li nga koy wax loolu mooy suñ baatu wolof nañoo wax beneen baatu wolof buy représenté ma baat boobu léegi nag boo jëlee benn mbir nga nga jël ko nga jël ko yow nga di ci jël naan euh, jaaykatu ganaar mais euh, McDonald jaaykatu ganaar la ah? ah kay waaw. mu ngi mel na nga ne nga wax nangam eh, eh, eh, Jésus lan la woon ministre la woon affaire bi nit ñi waratuñoo nekk yow ñoo ñu ñoo la gën a ñoo la gën a ñoo la gën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na benn benn nit bu liggéey bant benn su doon léegi ñu ne law liggéey liggéey ba loxo bi dagg mu jël loxo bi di ko raay ne loxo bi loxo bi àjjana la parce que liggéey ci liggéey da nga ciy dem àjjana ñun dañu jàpp ne daara niñ ko tuddee mooy jàng. fii sax fii sax bu ngeen fi nekkee am fi école daara la nañ fexe ba nit ki jàng maîtriser am compétence am parce que doomu aadama da ngay jàng ñoo ngi aadama buy tama sax tama tama dañ koy jàng boo ko jàngee ba man ko dañ ciy am dara waaw loo munul. waaw loo munul bu wax sax dañ naan daaray Cheikh Anta Diop. waaw daaray Cheikh Anta Diop. wala <laughs> ndong ndong ndongo ya ca université bi loolu la ñuy wax xam nga cest nit ki bu amul culture. am complex ñaar la am amul culture am complex jàngul moo tax muy jéem a stigmatiser xoolal da nga dégg ay nit mas naa ko wax ay nit ñu baal ma xam naa doo kii waaw euh, Macky Sall euh, yaayam da daan jaay lii bàyyam daan jaay lii mais bu fekkee yaayam da doon jaay loolu bàyyi la ba jur président de la république wàcc na c'est ça le Sénégal man doomu Abdou Diouf nekk président la république ne doit pas m'impressionner mais nañ fekk doomu sàmmkat bi doomu nàngame bi jël xaalis ba mu doon amee fayal ci doomam mu jàng ba mën a nekk président la république loolu dafa war a nekk fierté tout waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu demee euh, bi ñu demee Najaasi mooy euh, pour nga xam nit ki ñuul yàgg naa ki Égypte bi nga Égypte mooy bi leen euh, kii kii dañoo daw gàddaay ñëw Égypte mais bi gars yi ñëwee pour bëgg ñu delloo si leen kii dafa ñëw ne woy lan la yonante bi wax mu wax ma ne kii nan la mën a waxee lii sàmmkatu xar bi mu ne ko attention Jésus charpentier la woon mu ne ko attention bu fi wax loolu ah Jésus charpentier la woon kon doomu aadama yàlla daf lay daf lay daf lay daf lay eh, daf lay jox métier avant mu lay yónni eh, kon li war mooy daara mooy fu ñuy jànge